Sonko dalla sama xel mi de barke Rasulaay fi ma toogoon daaw laa toogaat ren mais Sonko dalal sama xel mi maa ngi nii wootu ba rafet boogaa naka dama nii mel naturel bi nii la bu ma sama xol mi tàngee ma ñaaw mais man kenn dàqu ma xam naa lu tax ma wax loolu defoon naa bi laaj kenn dàqu ma billaahi kenn dàqu ma mais bu sama xel dalul sa wax ñaaw Macky Sall lu fi toog yëpp maa ngi ñaaw ñàng ku ma gis bëgg a daw ndax dëmm ji ma ko seqaloon mais ba ma jëlee fii dëmm bi teg fii waa ji sama xel dafa dal léegi nag yàkkamti yàqule am na yoo xam ne dañoo yàkkamti fu mu ne nii gars yi réglé lépp déedéet def leen ndànk rek déglu leen waa ji déglu leen waa ji déglu leen waa ji gars yi dal kenn mënul ñëw defar yàqu-yàqu douze ans ci benn fan. gars ñu ngi fi ba léegi de ngeen foog ni gars yi fàtte nañ leen man des fois ngeen ki ngeen di fàttaliku nan da ngeen di fàttaliku Sonko ay le commissaire yàgg ay le commissaire xawma karak teka vax ak <laughs> ma ne <laughs> Moussa Fall sax Sonko yéegul rek wàcce ko moom ak Jomaay non non non Moussa Fall a pris du temps <laughs> ñu koy toroxal yu métti Moussa di sol ay verres ñu lan nii Jomaay xulli ko ak ñaari bët ne ko nii nuyu ko nii di ko xool Moussa naan nii musa <laughs> Moussa mu buñ ko fi bàyyoon ñaari fan encore musa faatu mu koy toroxal nag <laughs> c'est que gars yi doo leen ñëw rek dàqale dër da nga leen di toroxal da nga leen di toroxal ba ñu torox ñoom ñu la yàkkamti di yónni seen éléments yi loxo ko dégagé loo toj leen oto bi wa toroxal leen ko <laughs> nga ñëw jàkkaarloo ak ñoom nag benn sangare bu allez dégagé loo bombardé booy lem leen ko mu takk leen ko mu dëgër nga toog eh, le commissaire Sangare gi nga ne ko nii gaayen ba nga doon wax dégager la toj leen oto rajaxe leen ko bombarder leen ko c'est un civil man la c'est bon man la bi moo mujjee wëlbatiku maay sa baay maay sa baay di loxol ñaari bët alors kañ lañ ma dégager <laughs> moo tax gars yi dañ leen di toroxal bañ la topp ñu dàq leen ndànk mais may leen ñu may leen ñu tamit ñu dund leen jaxanama ci kaw suuf xeetu dorox tànge boobu civil ba nga doon saaga ndey di ko taraxal naan nañ tot otoom ak nañ ko nangam nangam nangam <laughs> waaw te kooku mooy sa baay tey moo la jiite de <laughs> tey moo lay yónni waaw moo lay yónni de mhm, moo lay yónni moo lay yebal chaque chose à son temps yoon ndànk-ndànk rek bu leen yàkkam di bàyyi leen leen ñu souffrir bàyyi leen leen ñu souffrir ñoom ñëpp a ngi fi Sonko fàttewu ci kenn li Sonko daj ci seen loxo mburu daj ko ci fuur fàttewu ci kenn de hmm? ñoom candee ñoom ñëpp a <laughs> ñoom candee la ñu ngi fii mais Sonko ngi ne teg <laughs> Diomaye ngi ne teg dinañ seetaan mais barki alxuraan amuñu jàmm ña ngay ñaan ña ngay dugg ci àll ba ña ngay takki nombo gis nga koo ci gis balaa xëy dina dina sangoo trente saafara yu bokkul bu verte bu rouge bu jaune bu orange mëq sunguf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sonk yàlla yàlla balaa ñoo ñëw seen siège yeeg fépp bala <laughs> nañ doon ñëwee fii sol seen costume ñëwee noonu xam leen lu xew dama ñëw noonu rek sol seen costume dugg seen oto climatisé ko ñëw dawal ñëw gaare gars yi tudd <laughs> non instant yi seen taaj yaa ngi tëgg tama ña woo sëriñ ya ña ngay sangoo saafara ña ngay takk nomba ya nomba yu ñu gëjoon takk yëpp lañ jëlaat takk seen digg yaa ngi fee jàll ña ngay woo sëriñ yi musuloo ma ci kii ya Ousmane Sonko la tudd yaay ma ngi tudd lii papaam na ngi tudd lii nang jomaay ji papaam na ni ñuy souffrir ba xamu leen ko sax am na ñoo xam ne boole leen laal ñuy dee am na ñoo xam boo leen bu ma xoon rek ñu daanu dee nañ bi ak dañu leen leen di gis nii rek barki alxuraan gars yi nekk ci administration bi ñi ngi ci xeetu sëriñ tu boo xam ne ah koo ci laal mu dee kenn ci ñoom xelamam dalul ñoom ñëpp seen yaa ngi tëgg tam <laughs> waaye loolu mooy souffrance psychologique balaa ñoo ñëw nag ci souffrance beneen bi physique bi jamono ji souffrance psychologique lañ nekk Sonko di leen dunduloo après nag souffrance physique mooy ñëw ñoom ñi ngi fi am na jamono joo xam ne ñi ngi fi woon mais da nga doon yëg ni ñi ngi fi dañ doon wane waaye lan moo tax Moussa Fall dëggal loolu moo tax commissaire Sangaré ñaawteef yu mu doon def defatu ko kon kay xam na ni mbir yi changé na mënu woon toog une semaine te déggoo ñaawteefu commissaire Sangaré mënu woon toog une semaine te déggoo ñaawteefu euh, commissaire euh, euh, Baara Sangaré wala wala wala wala beneen commissaire ñoom ñëpp a ngeen di teg <laughs> ñu di teg mosoo woon toog une semaine te déggoo benn ñaawteef ci ñoom tey déggatoo ko de léegi lan moo leen arrêté loo kan moo leen wax ñu arrêté <laughs> talatuñ ko de kon fu nekk nii neutraliser nañ leen poison bu ñu doon mataatee génne nañ ko ci ñoom rocci nañ ko ndànk venin bi lañ rocci bàyyi leen ay fu ne ay vipère la ñu amatul kii de waa ana seen procureur bi mus ngeen dégg un mois boo xam ne amul mandat de dépôt léegi de amatul mandat de dépôt te pourtant mi ngi fi ba léegi de procureur ba fi newoon moo fi nekk ba léegi dindeeguñ ko ba léegi de mais musul toog un mois te deful mandat de dépôt depuis ñoom Sonko toog fi ba léegi amul benn mandat de dépôt <laughs> laaj leen lu tax lu fi changé lu fi changé lu fi changé ah ñoom Mamadou Seck mus ñoo toog un mois de dooruñu mandat de defatuñ ko de depuis un mois dooratuñ kenn mandat de dépôt de ñoom Maham Diallo

mais cocc la def dooratul kenn mandat dépôt mi ngi mel ni ku dee te deewut de ma nga fa mu toogoon <laughs> mais daa mel ni ku dee boo ko puusoon sax mu daanu Mamadou Seck mi ngi ne tek dooratul kenn mandat dépôt ma nga mel ni ku dee boo ko bu ma xoon mu daanu dee nañ bu yàgg dañuy dox dañoo dee di dox de boo la newoon duul sax duñ fayu boo demoon tey dem dem leen palais de gis Mamadou Seck Mamadou Seck mu ne ah nga ko duul fessee euh, baal naa la <laughs> baal naa la <laughs> baal la loo ma la waaw loo ma wax te ñu ngi fi ñu ngi fi de ñoom baaxum ak barke alxuraan ñi ngi dund dund gu boo xam ni dee leen ko gënal dund gu dee gën <laughs> nag loolu mooy torture psychologique dañ leen di torturer psychologiquement après rocci leen génne leen foofu nag topp leen traqué leen ñoom ñëpp buñ mënoon daw dem Europe dañuy daw dem Europe de mais duñ daw dem Europe de <laughs> laaj ma commissaire yo doon yo yo man ca ci laa comprendre ni gars yi jekku nañ leen nag am na commissaire yi ñëwoon fan yi ci man mola mola gars yi yàq sama der de billaay wallaay xam nga yow kii sa sa waay la euh, tël sama copain waay euh, euh, Juan Branco mola ay commissaire billaay Mollah est que man bokk naa ci euh, kii Juan Branco man topp na ma ah ah man man ma ne ko non la wax euh, nga non non non dañ ñu ay page di ma fenal naan man Juan Branco man la porté plainte que man bokk naa ci affaire bi plainte bi est-ce que ci laa bokk. ma ne ko non gisuma ci sa tur ah waxal mu leer parce que ñoom dañoo eh, di ma fenal waaw man dëgg laa man géré wu du GIGN ñoo ñoo tojoon <laughs> kon ñu ngi jiyante barki alxuraan du GIGN ñoo tojoon bi. est-ce que dig la ma ne ko non du dig de GIGN ñoo ko tootoon man géréw ma GIGN dig laa du GIGN dig la ñu naan Juan ñu ko jëli woon ñan la est-ce que waa di ko ko jëli du waa GIGN ñoo ko jëli waa BIP BIP la ak GIGN ñoom ñu ngi waa BIP dig ña ngay reyante seen biir ku nekk naa yaa ko jëli ku nekk naa yaa ko jëli woon porte plainte ñu ma de moo moo moo laa wax na leer barke alxuraan ñi ngi yow di ma jooytu barke alxuraan billahi commissaire yaa ngi tiit jaax jaaxle jaxasoo ba ñëw ku nekk naan ma du man naan jey seen a toj naan Juan Branco waa dig jëli ñu ko waa bi ba ko jëli seen kii marque beeg bokkuma ceeg ñu ña ngay seen biir <laughs> maa ngi ne tekk rek dina xool ah ah man de xamee wu ma leen ah GIGN bip dik ah waay tur yee xaw na rek ma leen ku nekk ngi daw naan du man billahi wallahi wa taala golo la gën a xam xaj golo moo la gën a xam kër gu am xaj ñii dafa ñu de <laughs> xam nañ la lu woon wëndi na de kenn nit ci ñoom ñi mawul dem France ndax mandat d'arrêt international ba kon ñoom ñëpp a ngi toog fii di xaar ñu rëkk seen digg yi ku nekk profito moo laa dañ maa sosal moo laa bokk ma ci man waa dig la géré keneen GIGN la un géré wu GIGN ñu ko wa bi ba ko géré ñoom ñëpp a ngay jiiñante lu day ni ay commissaire ku nekk ñëw ci man di jooytu ma def tekk rek ma ne ah man de xamee wu ma leen bip bip ñooy sal ñanati bip bip police la bokku ah mi intérieur moo koy intérieur bip BIP la bip man GIGN gendarmerie la dik police la c'est que waa G waa gendarmerie ñoo ko jëlee woon national <laughs> may reetaan Moussa Fall may reetaan ah, xaw ma ko ci man <laughs> xaw yëpp xaw ma ko ci ah d'accord <laughs> xaw ma ko ci woon d'accord am problème en tout cas Sonko moom xam na yëpp. Sonko xam nañ ña jëli woon xam na ña toj xam nañ ña rajaxe oto jàmbur ya ña génn soorise bum rek toj <laughs> toj leen dootoo leen tojati de kañ leen bàyyi toj ay oto kaay toj toj leen toj toj toj leen toj da ngeen da ngeen di di jaare di tojaat kooku <laughs> waa woon teg ngeen toj ba veer yi ñëw ci kawam mi ngi toog ne teg di leen xool <laughs> ba léegi moo kon di wax patriote yi yéen soyez confiants dal leen loo leen jàpp ni xam ngeen lu ko raw Sonko xam na ko toog bu ci opposition bi la ko doon xamee wax amul opposition opposant bu gënoon informer Ousmane Sonko ci ci ci dëkk bi amul. kon tey ka gënoon informer ci opposition bi mooy la yàlla ji tey jiital kon kay amul lu ngeen di jàng lu mun a jàng ci yen déglu leen ko déglu leen ko ne <laughs> ñoom bokkar yàgg ñoom ñëpp. dal rek gars yi dal rek bu leen yàkkamte marché bi dana neex de billahi marché bi dana